maam jaaraanu mag royukaay moo man buur moo sellal te moo jarataas moo seen mboor moo rëy moo doy waar moo am xaas jeeg yépp xandeer lañu boot moo am boor am diine rafet melokaay jaamu sawar te dootoo njiraw sang njàmbaara tax nga borom saam an mam daam def jant yu fekk duniyaa not ay weer ab xaayaan la yor tabu géej ay waameen fa nekk lay janjab joor bun sàngoy nelaw ma ngay joor ay rakkaam sun booyoo ku seral naan yaa ngay woor nee nañ sax dangay defar maam ay wantaay sun nga jox dëkkandoo sëñ Mamor doo botte te yow xañaan xañaan doo ŋaayoo yaa sotte rafet taxawaay waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw inpret ñu ngi bu baax a baax euh, di wax ne rek euh, macha allah comme ni ngeen ko gisee rek waa ahlu liggéeyal Bamba ñu ngi ci liggéey bi ba tey mu mel ne yeneen ñi ñëw tombeek ñu nekkoon ci ndekki yi six mille pain yi nga xamante ne ni defaroon nañ ko ngir séddale ko Euh, képp koo xamante ne nii pèlerin nga bu ñëw fii ci Porokhane ngir euh, ziar si soxna si boole kook euh, jus ak ndox yi dégg dëgg yàlla taxawu ci nag lu wàllu policier yeeg sapeur pompier croix rouge koor yooyu daal maanaam ci ci gàttal lépp rek ngir jàppale ko mu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci liggéey bi nga xamante ne nii liggéey bu kawe bi nga xam ne moom la ko si Serigne Touba dénk te mu ci doxee nu kawe suñ njort ñu ne ñu di ci fësal suñu yéene rek nga daje cee ngërëmam ñuy santaat murid yëpp bu baax a baax a baax di santaat waa ahlu liggéeyal Bamba ci seen taxawaay ci bis yi di wax ne rek ab murid moom lii rek la am mooy liggéeyal Serigne Touba lu mu mën a am liggéeyal Serigne Touba moo ko gën ci moom kon nag euh, ñoo ngi soññaan ñëpp di jàjjiwaat ñëpp ñu gën a góor waat ci liggéey bi xam ne liggéey bi moo ñu fi bàyyi amuñu lu sëriñ bi bëgguñu lu may sëriñ bi jàppuñu lu sëriñ bi suñu lépp ci sëriñ bi la tënku lépp lu ñu amit sëriñ bi lañ koy def kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ne rek xam naa ne bu ci kanamee tuuti incha allah dinañ ñëw ci añ yi moom it mu gën a yaatu bu ngoonee yi ñu ñëw ci njoganal yi mu gën a yaatu incha allah jëm reer yeeg allah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. moo nampal ñu gorgorom leen soow yaa cër ngor jigéen ñëwoon neer ay xarbaax waa Mbàkke ni teg gi tey xaas min jil ndeer seetal tey li xew poroxaan ñéppay naan kaas yaa lay wëndeelu tey foor fees tey fuur sun yeewoo ba soxna feeñ xil mbaa buumam duur jën yaa ngi mu nuy tegab ceeb sax koy naaf roof soppaat mbol jayeg coof ñuy fiiriir ndar jaa ngi fa waa am nan coof ak saabilaay min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taalaa mbokki taalibe mbokki jullit yi may tudd Soxna Astou Diouf nekk euh, yor kàddu fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne ñoo féete sawu jant te soxna Maam Jaara Mbàkke moom Serigne Mouhamadul Muntaxa jiite ko ah ñooy nuyoo tey ziar di ñëw ci liggéey bi nga xam ne moo ñu fi indi muy maanaam fédération bi dafa judd en mille 2017 ci ndigalu Serigne Issa Mbàkke moom Serigne Moustapha Bassirou ñëw ci soxna maam Jaara Mbàkke ngir mu dajale daara yi nga xam ne ñoo féetee ci saw jant ngir ñu fédéré seen liggéey maanaam ñu dajale seen i liggéey ngir ñu mën a jàppale daara ja ca Poroxaan ah fédération bi ba mu tàmbalee dafa am liggéey bu am solo boo xam ne moom lañuy def ci daara ji ndax gis nañ ne ba ka sëñ Moustapha Bassirou tàmbalee ak léegi yal na yàlla yokk leeram boobu ba léegi la fa nekkoon yokk gi fa taxul mu doon lool ñu daal di eh, dem ca daara ja comme ni ko sëñ Issa waxee ne bu ñu demee ca daara ja nañu àndandoog waa daara ji ñu xool ci li ñu gën a bëgg rek ñu àndandoo kook ñoom bi ñu ñëwee ñu gis ne maam jaara yi dañuy nekk ci liste d'attente yi ba seeni at weesu te du ñu mën a tàbbi ci daara ja ñu daal ne nañ leen jàppale ci bâtiment yi ndax képp koo xam ne rek sa tur ne nekkati na ci list d'attente yi nga mën a tàbbi ci daara ji ngir loolu nag ñu gis ne jàppale leen ci bâtiment yi dafa de li gën a yell ndax ñoom loolu sax lañ ñu gën a yittewoo ñu jàppale leen def projet boo xam ne dafa tudd projet boo xam ne yeesal daaray Poroxaan ji yeesal bi nag dara weesu ko lu ñu jàppale leen ci lépp loo xam ne rek ñoom mën nañ koo ittewoo nañ ko ci biir daara ji muy ci bat bâtiment bi muy àndandoo ñoom ci liggéey bi àndandoo ak ñoom ci lépp loo xam ne rek ñoom dañ koy yittewoo ci kaw loolu nag la fédération bi ànd ak mbooloo mi muy soxna maam Diarra Mbacke ànd ak daayira yi nga xam ne ñoom la sekkal fédération bi ñu liggéey fa ay liggéey yu am naal yu am solo ginnaaw projet yeesal bi am na ci yenn yoo xam ne ci projet bi de jot na faa am muy dëkkuwaayu jàngalekat yi yokk nañ ko dolliwaat fa ay dortoir àndandoo kook ay yenn ci mbokk taalibe yoo xam ne dañoo ñëw àndandoo kook fédération bi loolu daal mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci Poroxaan ci Poroxaan ànd koog fédération daayira maam jaar yi nga xam ne soxna maam jaara Mbàkke moom Serigne Mouhamadou Mountakha moo leen jiite fi mu nekk ni dañoo taxawaloon projet boo xam ne projet yeesal lañ ko tuddee woon en 2000 gis nañ ne biñ ko taxawalee ba léegi ah jàmbaar yi ay jaa ay ndax booy seet lii nga xam ne moo nekk ci sama ginnaaw muy bâche bi dañ ciy want li ngi lépp loo xam ne jot nañ ko réaliser ci liggéey bi muy gis nañ ne tabaxaat nañ fa ñaari dortoir yoo xam ne am mbokk taalibe bu bëgg lu baax moo ko jël ci fédération bi tabax na ko ba yi fi nekk ni maam jaara ya ren ci la ñu màggalee am na boo xam ne it benn fédération bu Italie ay mbokk taalibe yi nekk Italie ñoo ko jaarale ci fédération bi jël ko moom it nekk na en chantier ba gros œuvre yëpp pare na fii lu néew bu soobee yàlla dinañ ko mën a daloo am na mbokk taalibe yoo xam ne tamit jaar nañu ci fédération bi jël fa li nga xam ne moom lañuy ñuy wax réfectoire bi maanaam mooy fi nga xam ne foofu la maam jaara man mën di xewloo ànd ak waañ loolu fi nekk nii moom it maanaam presque gros œuvre yëpp pare na finition yi rek a ci des ginnaaw loolu gisoon nañ ne ñoom yitte woon nañ ne jumaa ji fa sëñ Moustapha defoon nawet bi da koo xawoon a yàq lool bi fa ñëwee ñoom ñu jàmbat ñu ko fédération bi jël na ko liggéeyaat na ko ba nga xam ne fi mu nekk ni jumaa ja finition rek moo ci des jàngalekat yi yi nga xam ne dañ daan génn ci biti daan dëkkuwaanu ci ci biti daan luye ay néeg fédération bi fexe na ba nga xam ne seen dëkkuwaay ba yokk nañ ko ci kaw def fa ay néeg yoo xam ne fukki néeg ak juróom-ñaar yoo xam ne néeg bu ci nekk def nañ ci salle de ba fi nekk nii sax ay néegu gan am na ci biir foofu loolu lépp liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def loolu lépp fédération baa ngi koy def àndandoo kook mbokk taalibe yi am na nag yu des muy dañoo bëggoon tabaxal leen administration bu mucc ayib muy ba image yi ngeen di gis bu soobee yàlla loolu ci loolu lañ jëm ak ñoom ci administration bi nga xam ne bu ñu paree ndax mbébétu fédération bi mooy euh, daaray maam jaare ji doon institution boo xam ne day mucc ayib yoo nga xam ne dañuy am ci àdduna bi ndax daara joo xam ne lañ fay jàngale ñu ñu ñu ñu mettre leen ci condition yi baax a baax ba nga xam ne ndax njàng ma fay am amul fenn fu mu am ci biir àdduna muy leen boo toll noonu ci ay maam jaara nekk fa ñu di leen jàngal alxuraan di leen jàngal xam-xam ak nañ leen koy jàngalee te lépp sëñ bee ko yor amul kenn ku fa sa dërëm di def kon looloo tax sax ndigal li ñu ci jotee ñu gën cee sawar àndandoo kook ñoom ngir mën a liggéey li nga xam ne moom ci jamono yi nga xam ni ñëpp dañu yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génn ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi digital jaay dafa la koy livré ba fan soxla soxlaa li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital store am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payoor bi ci 12 mois wala 24 mois su leen e itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalstore.sn téléphone 33 823 77 87